asalaamaaleykum wa rahmatullah soppe yi sëriñ Mahdi Ibrahim Niass yëpp maa ngi leen nuyu kenn ku ci nekk ci yéen di leen ziar ci ajuma bi di nuyu bu baax di ziar suñ sëriñ Cheikh Mahdi Ibrahim Niass di sàkku ci moom ñaan di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi te mu ànd ak wér waaw tey ñëw nañ ci ndigalam beneen yoon indiwaatal leen beneen œuvre am comme niñ ko daan defee tey nag œuvre bi ñu leen indil mooy El Hadj Abdoulaye Niass œuvre bi nga xam ne Cheikh Mahdi publié na ko ci maam El Hadj Abdoulaye waaw ma présenté wu Ndeye Fatou Mahdi Ibrahim ñes la ñu def kom niñ ko daan defee jukki ci ci œuvre bi présenté leen ko chaque vendredi ñu ñëw indil leen suite bi ba bi œuvre bi di jeexee incha allah. ñu def lecture bi ci français su paree ñu defal leen traduction bi ci olof comme niñ ko daan defee incha allah. El Hadj Abdoulaye Niass un saint homme exceptionnel. El Hadj Abdoulaye Niass que nous appelons avec déférence Mam Aladji et sans conteste de la race des grands patriarches doublé de cet élan mythique des premiers pères fondateurs géniteur d'un temple spirituel splendide. dont l'un des piliers les plus révélateurs est le cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass radiallahu anhu celui-là même qui à son tour devint le chef de file d'une vaste congrégation s'étendant de l'Atlantique à l'Oural pour reprendre l'expression de René Baron ainsi tel fils tel père sommes-nous inversement tentés de dire pour prendre la mesure de la capacité formatrice de la grandeur de céleste de ce saint homme L'aperçu que livre ici Mohamed Mahdi Ibrahim Niass sur l'itinéraire de son, son grand-père nous présente sommairement le chef religieux face aux autorités coloniales, les écueils contre lui dressés et qu'il a su surmonter. Et par-dessus tout, le chemin de lumière qu'il a pu se frayer dans cette Afrique rustique des royaumes pour aller à la quête du savoir et vers les grâces suprêmes de la doctrine tijane. un rôle de pionnier que le devoir de mémoire impose aujourd'hui à la jeune génération de ses disciples et descendants, voire des historiens et biographes. Ce que semble avoir bien compris à un siècle et demi de distance de son sujet, l'auteur de ce livret, ô combien utile pour le présent. El Haj Abdoulaye Niass, né en 1844 à Béli, dans un village du Djolof, fils unique de sa mère, Il reçut à l'ombre de son père Mohamed Niass radiallahu anhu, maître réputé de l'enseignement coranique, une bonne éducation islamique. Il apprit le Coran par à l'âge de 15 ans et fut initié aux autres sciences islamiques auprès de Serigne Mahtar Fandiaï. Son itinéraire culturel suscite d'autant plus d'interrogations qu'on ne lui connaît d'autres maîtres que son père et Serigne Mahtar Fandiaï. Pourtant, Sa vaste culture embrasse des domaines aussi divers que le Coran et les sciences islamiques, le soufisme, la littérature, la science des plantes, pharmacopée traditionnelle et le traitement des maladies mentales, etc. On rapporte qu'il maîtrisait 300 plantes ou leurs dérivés et les versets coraniques respectifs capables de soigner telle ou telle maladie. Père de Mam Khalifa Niass, son fils aîné, un homme de lettres de très haut niveau, et du Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim Niass dit bail au rayonnement universel. C'est ainsi qu'il a formé tous ses fils et disciples devenus tous des imams et, qu'il a, qui, et à leur tour en formèrent d'autres. Formateurs, travailleurs et hommes de dignité, cultivateurs travaillant conformément aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses disciples ouvriers devinrent aussi de grands exploitants agricoles exerçant pour leur propre pour leur propre compte. Homme d'une grande force de caractère, franc et ferme, il était tout aussi plein de compassion pour son prochain. Baye rapportait que Mamaladi disait Soyez souple, modeste, avec humilité, mais restez digne de sorte que personne ne puisse vous monter dessus. Cela étant, Il a très tôt démystifié les Toubabs en disant qu'ils nous ont devancés et dominés en culture. Faisons tout donc pour avoir la culture et la science pour nous affranchir de cette domination. L'émigration et la résistance. C'est en 1867, alors qu'il avait 22 ans, Elhaj Abdoulaye Niass anhu quitta le Djolof pour le Saloum. Ce fut alors dans le contexte de la lutte anticoloniale menée le grand marabout Gagné par le vent de la révolte et du nationalisme, il rejoignit Sayer Matiba, qui le nomma conseiller aux affaires religieuses dans sa cour en même temps que cadi de la province du Rip. en son temps, avait nommé son oncle Ibrahima Thiam aux mêmes fonctions. Cet engagement auprès des résistants à la domination française valut bientôt à El Hadj Abdoulaye Niass l'hostilité des autorités françaises qui le contraignirent à s'exiler en Gambie. en mettant le feu à sa maison. Cette éducation se caractérisait surtout par la discipline de fer qu'il imposait à ses enfants en faisant appel à l'effort physique dans tous les domaines, travail des champs intellectuels avec apprentissage et mémorisation de toutes les branches du savoir religieux et temporel. Il leur inculquait les principes de l'humilité et de la modestie et aimait à les présenter comme étant tous des oulémas sortis de son université. El Hadj Abdoulaye Niass se distingue également par le fait qu'il ne transigeait jamais sur les principes de la charia, récusant même les dérogations prévues par la législation islamique pour le cas de force majeure, car estimant qu'une exception accordée peut toujours constituer une, partie, euh, une porte ouverte sur les abus. Il avait également combattu les bidas ou déviations superstitieuses étrangères à l'esprit de l'islam, telles que la charité des trois jours faite pour les morts. El Hadj Abdoulaye Niass effectue le pèlerinage à la Mecque en 1880. Au cours du voyage, il s'arrêta à Fès et à Alexandrie. À la il fit la connaissance du shérif mauritanien Cheikh Mohamed Ould Cheikh, à qui il paya le billet de retour à son pays. Ce fut sans doute l'occasion de tisser des liens solides qui iront se développer entre la communauté maure et les Niassènes. Au retour, El Hadj Ibrahim Niass s'arrêta en El Hadj Abdoulaye Niass s'arrêta en Égypte où le hasard voulut qu'il assista à une assemblée des oulémas égyptiens. Une question délicate posée aux oulémas par le Mufti était demeurée sans réponse. El Hadj lève le doigt pour y répondre, mais on ne voulut pas lui accorder la parole car estimant au vu de sa peau noire qu'il ne devait même pas être en mesure de parler correctement l'arabe. à plus forte raison de répondre à une question qui avait tenu en échec tous les oulémas de la place. Devant l'insistance avec laquelle Elhaj Abdoulaye Niass demandait la parole, le moufti se résolut à lui donner, mais sans se faire trop d'illusions sur le résultat. Elhaj Abdoulaye Niass traita avec compétence la question, ce qui dérouta totalement l'assistance au point que le lendemain, le moufti organisa une table ronde en son intention et invita tous ceux qui avaient des questions à poser à Elhaj Abdoulaye À l'issue de cette confrontation, les oulémas firent un poème pour rendre hommage au génie du savant sénégalais qui avait ainsi réussi par l'étendue de son érudition à mettre en pièces le mythe de la supériorité supposée des Blancs. C'est là une contribution à la lutte pour la dignité de la race noire qu'il y a lieu de souligner, car H. Abdoulaye Niass fut bien un pionnier dans ce registre à une époque où les voix noires étaient étouffées partout dans le monde. waaw euh, bismillah ñu ñëw kon ci tradition bi ci wolof di wax ne œuvre bi Cheikh Mahdi li tax mu publier ko mooy jamono ji dafa dox dafa avancé temps bi dem nit yi nag léegi euh, lu nekk la ñuy raconter lu nekk la ñuy wax loo xam ne dara du ci du ci leer nettali ci maalaaji lii ñuy wax ci moom laa ñuy wax ci moom lale da ngay dem ba yow da ngay réer doo xamati Cheikh Mahdi Ibrahim Niass nee na nag pour épargner ñu loolu pour jàppale ñu ci loolu moo tax mu def gëstu ci Maalaji Abdoulaye indil ñu ko jaar-jaaram ak moom mooy kan ba nga xam ne dina tax ñu gën a xam maam alaaji dina tax ñu gën a gindeeku ba xam bu baax ci ci fuñ bokk ak luñ bokk œuvre bi mi ngi ko tuddee El Hadj Abdoulaye Niass nitu yàlla bu jéggi dayo El Hadj Abdoulaye Niass mi nga xamante ne ñun ñëpp ñu ngi koy gën a xam ci turi maam alaaji amut sikk ne bokk na ci nit yàlla yi gën a mag yi gën a kawe ndax bokk na ci misaal rekk nga jur góor yàlla gu toll ni cheikh al islam El Hadj kon mën nañoo wax ne doom ja baay ja comme ni ko tubaab yi di waxee pour natt rekk tolluwaay góor yàlla googu di maam alaaji Abdoulaye Niass Cheikh Mohamed Mahdi Ibrahim Niass nag def gëstu di ñu présenté fii bu baax kan mooy maam Alaaji Abdoulaye Niass di ñu won jaar-jaaram ak yoon bim jaar ak xeex bim xeex ci wàllu tubaab yi yi nga xam ne dañoo nootoon bi bim jamonoom ak léegi mën na siècle ak genn wàll waaye teewut dinañ dem découvrir nit kooku mu ne El Hadj Abdoulaye mi ngi juddu ci 1844 ci dëkk bu ñuy wax Belli nekkoon ci Jolof moom Maalaaji Abdoulaye benn doom la woon ci ndeyam ci ron baayam bi tutoon Mohamed Niass fa la jàngee alquran baayam nekkoon jàngalekati alquran bu mag bu amoon tur bim jàngee alxuraan moom euh, Maalaaji Abdoulaye mi ngi mokkal alquran ci bi muy am fukki at ak juróom. ginnaaw loolu nag ci la dem di jàng xam-xam ci ku ñuy wax sëriñ maxtaar faa njaay xam-xami maalaaji abdoulaye ak ni mokkale woon culture yépp taxoon na ñu bari sax mënuñu woon gëm ni kii baayam ak maxtaar faa moomu rekk ñoo ko jàngal xam-xam ndax xam-xamam bu jéggi dayo ndax moom culture yépp la mokkaloon wàllu xam-xam wàllu diine wàllu alxuraan wàllum mbind wàllum soufisme bokk na ci tamit wàllum gàncax yi nga xamante ne moom fajkat la woon fajkati cosaan la woon bu mag ndax danaan faj bay faj ñi nga xam ne dañoo tàggook seen sago daan nañu wax ne Maalaaji Abdoulaye mokkaloon na lu mat ñetti téeméeri gàncax ak benn bu ci nekk ay alxuraan bi mu àndal pour faj tel wala tel jàngoro moom maalaaji Abdoulaye mooy bàyyi maam Khalifa Niass radiallahu anhu mi nga xam ne nit yàlla bu mag la woon ku amoon xam-xam mooy bàyyi cheikh al islam radiallahu anhu mi nga xam ne jarut présenté moom maalaaji Abdoulaye Niass moo jàngal bépp njabootam képp kuy doomam moom moo la jàngal jàngal ay taalibeem ba nga xam ne ñoom ñépp mujj nañ doon ay imaam di former yeneen imaam moom baykat bu mag la woon boo xam ne liggéeyam yépp mi ngi ko tënkoon ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne képp ku ku daan surgaam jaar ci moom sax da ngay mujj mokkal liggéey bi am ci xam-xam ba mujj am sa yëfi bopp am say sa sa alal bu bu mag ci wàllu mbay moom Malaaji Abdoulaye nit ku am caractère la woon ku dëggu la woon ci wàllu wax du daan làq làkkal ay waxam ku amoon fulla waaye noonu la oyofee woon noonu la baaxe woon noonu la yaatoo woon Baay sa radiyallaahu anhu mu ne da wax ne maam alaaji daf leen daan wax ne nangeen oyof na ngeen wàccee seen bopp waaye na ngeen am fulla lool ba nga xam ne kenn du leen yab kenn du toog ci seen kaw bopp fulla boobu noonu nekkoon ci moom moom maalaaji Abdoulaye moo taxoon mu jugoon pour xeex ak nasaraan si nga xam ne dañoo nootoon jamono yooyu ndax daraan wax ne ñii dañoo noot ci seen wàllu aada seen culture ndax dañoo am culture jiituñu si kon ñun nañ def ñun tamit lépp luñ mën suñ kéemtalaay kàttan ba nga xam ne dinañ am suñ aadaay bopp dinañ am suñ science yi bopp ba dindi noot bi nga xamante ne nasaraan si noon nañ ñu ko ci 1867 bi nga xamee ne moom Maalaaji Abdoulaye mi ngi am ñaar fukki at ak ñaar ci la jugee ci jolof bi nga xam ne fa la dëkkoon ñëw ci saalum loolu nag li ko waraloon mooy boobu ma ma Maba Jaxu Ba xeex bi nga xam ne sóobu woon na ko ci xeex ak nasaraan si moo waraloon loolu maam alaaji Abdoulaye tamit dëggu ci jug ci xeex ak nasaraan soosu taxoon mu fekki ku ñuy wax Sayer ba radiallahu anhu kooku tabb ko ci nguuram comme conseiller ci wàllu lépp luy laal wàllu diine moom ak ku ñuy wax kadi bu rib Maba Jaxu Ba tamit jamono yooyu loolu mi ngi ko tabboon nijaay baay bu ñuy wax Ibrahima Thiam moom la tabboon fonction boobu ci jamono yooyu bismillah kon ñu ñëw ci traduction bi ci wolof ñu ne Mamalaaji Abdoulaye pas-pasam ci xeex ak nasaraan yi nga xam ne amoon na ko taxoon na ba nasaraan si sonaloon ko ba jëloon këram bi nga xam ne fa la dëkk ñu taal ko ba mu mujj gàddaay dem ci réewu bi dem dëkk fa Maamalaaji Abdoulaye danaan xiirtal képp bépp njabootam ak doomam ci sàkku xam-xam ci ñu ut xam-xam ñu góorlu lu mën ci sàkku xam-xam ci uh, wàllu xeeti xam-xam yëpp muy xam-xam ci wàllu bay xam-xam ci wàllu sàkku xam-xam ci xeeti xam-xam yëpp yëpp yëpp da leen ci daan xiirtal ci wàllu diine ci wàllu lépp moom daf daan def ci ñoom li nga xam ne mooy suufe ak wàccee seen bopp waaye dafa buggoon di leen présenter comme ay ñoom ñëpp ay ulema yu génnee ci université moom Maam Laaji Abdoulaye ñu ne Maam Laaji Abdoulaye xamoon nañ ko ci ku fonkoon sharia ku respecté woon sharia lool dëggu ci ba nga xam ne am na yenn yu ndaw yoo xam ne dañ daan wax ne soo amee ngànt ci nàngamam ak nangam charia may na la ko sax moom daf daan wax ne daf koy bañ da koy dàq ndax nee na bunt boobu mën naa may ñenn ñi nga xamante ne dañuy da dañ ciy ëppal ay dañuy ëppal ci yenn yi wane ne charia maye na ko rek mën nañ cee kii ñu ëppal ci moo tax buntu yooyu sax moom daf ko daan tëj ndax fonk bi mu fonkoon charia moom Maalaaji Abdoulaye tamit ku daan xeex li nga xam ne mooy ay bidaa la ak ay gëm-gëm yi nga xam ne méngoo wut ak diine lislaam lu ci mel ni comme bu ni nit nit génnee àdduna ñu naan dañ koy defal ay saraxi ñaari ñetti fan ak ay saraxi juróom-ñaari fan moom Maalaaji Abdoulaye loolu da ko daan xeex ndax da daan wax ne méngoo wut ak ak diine lislaam Maalaaji Abdoulaye mi ngi aji ci ati 1880 ci ajam boobu nag ci la jaare ci dëkk bii di Fass bu Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu ak ci Alexandrie ñu koy wax Iskandariya nekk ci Égypte ci Màkka fala la benn shérif mauritanien bu ñuy wax Cheikh Mohamed Ould Cheikh ba nga xam ne seen xamante boobu moo waraloon sax bi waa ji bi bi nga xamante naar bi bi muy bi muy dëpp di ñibbisi moom moom moom Maalaaji Abdoulaye moo ko daggaloon biir retouram loolu sax ñu ne bokk na ci li nga xam ne fa lien bi nga xam ne am na ci diggante naar yi ak famille Niassène foofu la commencé ci Maalaji Abdoulaye ak naar boobu noonu ci bi muy ñibbisi nag moom Maalaji Abdoulaye dafa jaar ci Égypte bi mu fa jaaree yàlla def mu tombee fa ak benn daje boo xam ne ulema égyptien yi ñoo doon daje biñ dajee mufti bi posé fa benn question question bi nag ñi fa daje woon yépp kenn amu ci tontu Maalaaji Abdoulaye daal di yëkkati loxoom pour tontu ci laaj boobu waaye xooluñ ko sax xoromaluñ ko sax ndax ñu ne kii moom dañoo jàpp ne der bu ñuul la am warta mën a làkk arab bu set sax bay tontu ci laaj bii nii waaye biñ gisee moom Maalaaji Abdoulaye muy insister ci laaj parole bi pour tontu ci question bi mufti bi daal dina xaaral mu jox ko parole rek nii waaye yaakaarul benn yoon sax ne laaj bi moom kii war na cee mën a tontu si la Maalaji Abdoulaye tontoo ci laaj bi ànd ak arab boo xamante ne ñoom ñëpp daf leen a yéem ak fasaa bu jéggi dayoo ci tontu bi boo xam ne ñi toogoon ci saal bi ñëpp a jaaxle mufti bi nag loolu waral sax ci ëllëg sa mu organiser benn table ronde invité ulema yëpp pour képp koo xam ne am nga laaj boo laaj maam Alaaji Abdoulaye nga laaj ko ko mu tontu la ci noonu tamit ulema yi fa nekk yi fa daje woon ñoom ñëpp ñu daje bind benn poème jagleel ko ñu ne boroom xam-xam bu jéggi dayo bi nga xamante ne jaaxal na leen ci xam-xam ñoom ñëpp ba pare te nekk nit ku ñuul boo xam ne santiru ton benn yoon xeebeel wala ne ñi muy waxal ñoom ñoo ko ñoo ko ëpp ci ci ci maqaama wala ci daraja wala ci lenn ñu ne nag loolu nag bokk na ci li nga xamante ne Maalaaji Abdoulaye bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo njëkk a xeex pour der bu ñuul yëkkati der bu ñuul ci kaw ba nga xam ne bu mu am xeebeel mukk ci kanami der bu weex ku mu mënti doon ci jamono yi nga xamante ne jamono yooyu nga xamante ne der bu ñuul dañ leen daan xeeb ba duñ daan am sax kàddu si foo dem ci àddina dañ leen daan xeeb di leen tuutal Maalaaji Abdoulaye bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk a xeex loolu commencé di ko dindi waaw kon xam naa